mbokk yi taalibe yi nu góorgóorlu nu góorgóorlu rek te xam ne àdduna amul benn amul benn solo nit ki bu juddoo ba xam xam xam xam ñee nday joro càmmooñam dara warta doon yitteem lu ji fu seeni aw tegu ci yoonu jub dafa mel ne eh, li fi indi yonent yi indi fi téere yi ba ci alxuraan indi fi sëriñ bi man dina ko xaaj ñetti xaaj mu yomb lool loolu moo di lan mooy njub ku ne xam na njub safaana mooy dëng la ca dolli ko mooy wii ci ndigal bàyyi tere loolu mooy diine loolu mooy lislaam la ca dolli ko muy bëgg lu baax bañ lu bon nekk ci lu baax di daw lu bon loolu moo di tàllu bi ñett yooyu rek la téere yépp ba ci alxuraan lépp loolu rek la mënoo koo gëstu ba fekk ci loolu loolu rek la mu gën a gàttal nag ñu gën koo mën a xam loolu rek la waaw kon nañ góorgóorlu ci gone yi teel leen yoonu yoon yoonu njub góorgóorlu ci mu gën gàttal yett yooyu rek la yett yooyu rek la njub góorgóorlu ci sa lislaam góorgóorlu ci sa lépp ngi ci biir kon xanaa kay ñuy gën a xam luy jub ñuy xën a gën a xam luy lislaam ñuy gën a xam luy taalibe rek waaw loolu itam dund gi na ci ndax loo gën a xam di gën di di gën di defaru di gën di yokku di gën di jëm kaw loo ko gën a umpule di gën des gannaaw rek di gën di ñàkk solo kon foofu it foofu la it ji nekk dund adduna gi nga xam ne waa adduna moom ci lañuy daw def ci seen yitte def ci seen lépp lu dara li leen cee jëriñ suñu borom noppi na ci ñoom loolu ganaar yi sax ñi ñi ñu xëy xam nañ nañuy dunde njaayàlla yi xam nañ nu ñuy dunde ndëgment yi xam na nu ñuy dunde dund dund ko loolu moom suñu borom noppi na bind tab bind la waaw bind la kooku moom ala kulli ku ko loolu moom moom du dara du dara yomb na li li li am solo mooy mooy mooy mooy jéem a xam li xew jéem a xam li xew moo am solo waaw xam yàlla xam alaaxira fas yéene nekk ci lu lay may ngërëmal yàlla nekk ci lu lay may mucc la loolu moo am solo li ci des lépp du dara yomb na waaye kër kër kër yoo xam ne fa fab nga sa lépp def ko ci loo xam ne du la benn njëriñ waxuma la te ñàkk njëriñ la mooy moo ñàkk njëriñ nga mooy jàmm ja lépp musiba i mbugal jeex ba jahannama du kooku du dara jël sonn kon nag la nga xam ne mooy tabe nga xam bind la loolu amul solo dund moom yomb dund moom yomb na dund yomb na loolu loolu amul solo jënd ci benn paal gannaaw ba loolu fee itam yàlla noppi na ci jaam ne lay wërsëgam yàllaa ko ko yoral fu mu nekk dina ko fekk ak moom lay cëram yàllaa ko ko yoral fu mu nekk dina ko fekk ak moom waaw bu fekkoon ne yombalu ko woon ba kenn ku ne mën a mën a mën a gara gara yi ñu ngi dund ñaa yàlla ñu ngi dund ñi ñi ci àll bi sax ñoo gën a suur yi ñuy sàmm di leen di leen xont te loolu lépp suñu borom loolu waxum bu fekkoonte ne yombal boobu képp doyoon na waaye suñu borom ci boppam jàmm bu ne mooy sa cër mooy sa wërsëg jërul sonn dëgg la sabab rafet na waaw ndax mu nit mënut a toog nekk ci loxoy neen bu bu am am tawfeex bu gindiku def def def de jublu yàlla dëddu adduna waaw bu boobaa itam eh, eh, dëddu néew dëddu teewut lekk. teewut a naan teewut a sol mbubb teewut a nite waaye loolu yomb na li am solo mooy jéem a xam yàlla jéem a xam àllaaxira waaw tàmbali ko ci gëm wéral sa gëm wéral sa gëm ba gëm ga wóor wóor te gëm gëm gëm loo gën a gëm loo gën a nekk ci lu baax loo gën a topp yàlla loo gën a def ci ndigal gëm gi di yokk waaye loo ko gën a sàggane gëm gi di gën a nii di gën a dellu gannaaw di gën a tuuti di gën a néew ba faf ñàkk sax waaw kon nu góorgóorlu yomb na du da du yomb na waaye nag yomb na jafe na yàlla lépp ndimbal sa borom la yàlla nu yàlla gindil boppam gindi nu gindinu ci boppam gindinu ci sëriñ Tuubaa waaw waaw euh, sëriñ bi euh, nun mooy suñu lépp nun mooy suñu lépp waaw ku am sëriñ bi am nga am nga sa borom am nga yonent bi waaw sëriñ bi mooy suñu lépp bañ na ko dëgg la dañuy wax ne yonent yi di wax malaayika yi sëriñ bi du yonent du du malaayika waye xejju boromama ba bu mujj ko def ko ndom xejju boromama bu mujj def ko dekk ko dëkkandoom kooku noonu lan mooy suñu kilifa koku koku la am waye nan ko nan nan nan nan ko nan ko sagal nan ko sagal waaw yalla rek la bëgg sëñ bu dara yalla rek la bëgg fa nan ko sagal bëgg liko yalla waaw señ bi nan ko señ bi bëggul dal def lu baax rek liggéeyal borom rek waaw jaamu yàlla bo liggéeyal yonent bi mi jëwriñam loolu rek soxla soxla sëñ bi soxla leen kon nan ko sagal nan góorgóorlu ci njub gone yu tuuti xëy na gone mun ta tëb tëb sax aw yoonu njub waaye njub bu bu ne junee tuuti rek daal di xam njub kon na xam ne njub a gën ci moom waaw lu mu tuuti tuuti tuuti mu teel a xam ne njub gën ci moom waaw gannaaw diine waaw nan góorgóorlu ci njub fas yéene ko liggéeyal sëriñ Tuubaa mel jéem mel na ni ni ni ni ni boroom bëgg waaw sagale ko ko waaw guugul suñ diine suñu lislaam suñu kem kàttan waaw sàggale ko ko waaw waaw waaw guugulu ci taalube waaw bëgg lu baax bañ lu bon di def lu baax di daw lu bon waaw suñu kem kàttan teel la tax ñu tund loolu loolu loolu lépp sëñ bi leen moom noonu am na sëñ bi leen koy defal sëñ bi leen koy liggéeyal waaw loolu lépp sëñ bi leen koy liggéeyal nan ko nan nan góorgóorlu yett loolu rek la li téere yi bari bari bari bari bari téere yu jëkk yi ba ci alxuraan loolu rek loolu rek leen loolu rek ko tax a jóg yonent yi li ñuy bari bari bari bari li ñuy baax loolu rek leen tax a jóg sëriñ bi loolu rek fendi li fendi yonent bi rek mooy yéen yonent yi rek moo ko fendi kon nañu góorgóorlu noonu lu yomb la waaye nag yomb na jafe na ndéem dimbal yàlla rek la ak taw fee xam yàlla nañu yàlla dimbalil ba boppam ci boppam ginduñu ci sëriñ Touba boole nu dimbal nag ban man a sax ci jaamu yàlla la sëriñ Touba waaw teel loolu rek la loolu rek la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax waaw sëriñ Isaaxa mii yaakaar naa ne loolu li ma wax eh, mooy sunu rakk dafa teeloon am jom lool am yitte ne day jàngi xam-xam boobu xam-xam rek la xam-xam xam-xam la waaye teeloon naa bàyyi xel sëriñ bi ndax sëriñ bii la joxoon jébalu boppam ba mu daan def waaw bi mu del see itam tëlatul loolu rek loolu mu doon wut ko am na am na lu ko gën a ñor fi mu ne muy lii ma wax rek <laughs> waaw kon nag loolu rek ci am solo loolu nag sax nan ci nan xam nan ko xam rek nan ci yeewu te góorgóorlu ci du ñu yàqal li ñu li ñuy wut suñu ak àdduna ci ñuy kër këree du dara du dara njaay yaa ngi dund ganaar yaa ngi dund njarax yaa ngi dund loolu <laughs> am solo loolu du dund lu ñu dund dundee rek nii nii lii lii ñuy kër këree di wuti bu bëgg di wuti di di di di loolu yomb na du dara loolu moom moom dañuy dem rek mu topp ci noonu waaw waaw te la ci ayut la ci ayut mën na koo jëfandikoo duñu yàqal dara waaye nu buñ tal dara nan tal yàlla nan tal suñu borom nan tal alaxira na buñ tal dara nan tal alaxira nan tal suñu borom tal alaxira ah te sant yàlla sant yàlla sant suñu borom sëriñ sëriñ bi am nan am nan lu doy sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi doy na sëkk tey ëllëg kon nag nan ko fas yéene nan ko fas yéene liggéey liggéeyal waaw nañ ko fas bu buñ ko liggéeyee rek am ngërëm ah, ah, ah, bu ñu amee ngërëmam rek am na ngërëmal yonent bi am na ngërëmal suñu borom waaw nañ góorgóorlu bu baax a baax dëddu adduna dëddu adduna buñ ko dee wax noonu ni ma ko waxee woon rek doo doo doo teewut lekk teewut naan teewut nit waaye nag nga xam nga àtte ci sa xel ne adduna kat amul lu njëriñ sa musiba rek la nga ci sa xel ne nga àtte ci sa xel ne li la amal njëriñ mooy mooy mooy mooy yàlla yàlla rekk la amal njëriñ alaxira rek la njëriñ la nekk waaw nga nga àtte loolu gëm gëm loolu acté ko waaw xam ne loolu loolu moo nekk waaw loolu mooy dëddu loolu mooy dëddu waaw sax xel doo ci gis dara doo ci gis lu gisu lenn lu am njëriñ lu yàlla waaw waaw doo moom mucc kaay doo gis benn mucc kaay adduna tëgg kër ji doo gis doo ci gis benn mucc baay mucc kaay bu ji mucc àllaxira rek waaw waaw loolu waaw li ñu yàlla rek yi moom moo fi moom moo moo yor njëriñ jàmm waaw mucc yi àllaxira rek la nekk te itam ala kulli bu bu jubloo yàlla góorgóorlu ci suñu kem kàttan fas yéene sax ci jaamu yàlla liggéeyal ko Serigne Touba fas yéene sax ci liggéey Serigne Touba jaamoo ko yàlla buñ ko defee texe gi fii la ñu du du du nigga ëllëg du nigga ëllëg dañuy texe fii di wéy ba ba ba ba ba àjjana waaw ña nga xam ne borom yitte yu rëy la ñoom ñoom te amuñu soxla ci àjjana ngërëmal yàlla lañu soxla waaye fu nan góorgóorlu waaw jërëjëf moom gën a yàgg lool waaw nekk fi ba amal amal na njëriñ njaam ñi lool waxuma la taal bi waaw